télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ning ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wergu animal ngir a sama jox la kàddu. mi nga mën sa jaar jaar. la dara raw. Mm. visibilité dinga ko am promotion dinga ko am. nanga wane sa ci émission jaar jaar nga am ndam. Ladoum TV télé askan mooy wane fi nga mëne ndax ñëpp xam Ladoum TV ñu mooy sunu télé Ladoum TV di fa am béto fii ma jaar waaw mbokku téléspectateur Ladoum TV ñu ngi bokk ci numéro 104 fii ci Mbour mu nekk dixième édition Ladoum de Mbour version 2024 tey ngeen def sélection bu rafet macha allah ñëw taaral bés bi ci biir sélection bi gis nañ fi ay xar yu weex tal macha allah ñu gis benn maal bu rafet nga présenté ñu maal bi. waaw mbokku Ladoum TV ñu ngi leen di ziar di ziar ñëpp ñu leen wax ne bergerie Tanor la ñoo exposé fii si foire Mbour bi Ladoumette 2024. indi woon fii suñu produit yoo xamante ne ñu ñoo leen juddule quoi. waaw di leen pré njëkk a rek maal bi ñuy wax euh, géej mambulaan di doom si wëz. yaayam nekk doomu gouverneur waaw moom la indi woon fii at famem ay njab ay doomam ak ay jabaram waaw moom mu nekk mal adulte boo xamante ne nii nattoon nañ ko foiru Tëngéej bu defoon ay performance yoo xamante ne yu ñu satisfaire mais dañ ko ñëw indi ko exposé ko fii Ladu Met bi pour gën a wane suñu liggéey waaw. ah mbokk téléspectateur Ladoum TV boo xoolee tey kii génnoon na fële ca est-ce que mën nga ñu fàttali Tëngéej mensuration yi nga xamante ni si moom la fa génne waaw moom Tëngéej defoon hauteur euh, 114 point 7 defoon LCS 167 defoon TP 132 poids bi moo amoon 122 parce que période boobu nekkul woon en forme quoi mais bon ñu ngi koy préparé waat ci édition yi di ñëw incha allah cinq bi pour gën a prép euh, ñoŋal affaire yi daal. naka nga jàngatee production ci côté góor ci côté jigéen. waaw moom moom soo xoolee euh, production dafa homogène li si gën a neex mooy dafa homogène bi si topp mooy moom rasseur la parce que tey jii doomam yi da ngay gis benn benn type benn style bi lay jur muy xar yoo xam dañuy am LCS am saxu yeel am am am am am am kii beauté bu rafet parce que lumière bi aussi da ngay gis si xar yi donc moom xar la boo xamante ne ba mu bañ ko bañ ko juddulee la ñu xam ne am nañ champion champion boo xam ne war nañ ko mën a samp voilà moom moom moo taxit ñu indi ay doomam wane ni moom raceur la pour confirmer ko wane ni moom mal producteur la indi ay doomam ne récemment aussi natt nañ doomam boo xamante ne espoir la woon mu gën a confirmer loolu donc kon moom maal la boo xamante ne wax ci moom day neex daal macha allah mbokku téléspectateur u Ladoum TV kii dafay indi ay mensuration di ko transmettre ay doomam tey boo xoolee tey nekk na maal bu doy waar waaye hauteur bi muy dégagé LCS bi muy dégagé beneen affaire la gis nañ fi benn femelle mu nekk femelle espoir bu rafet macha allah nga présenté ñu kii. waaw kii mooy Fanta. nekk si doomu géej maal bi ñu wane léegi géej Mamoulaan mu ngi si 17 18 mois waaw dugaloon nañ ko nag foire Tëngéej mu defoon tamit ay performance bu baax nekkoon meilleure femelle euh, espoir foire Tëngéej defoon hauteur 105 point 7 LC 150 TP 110 donc moom confirmé ne li nga xamante ne nii moom la papam euh, yoroon parce que moom bëggoon nañ ko dugal si foire Mbour bi sax mais malheureusement dafa foox quoi waaw benn bëñ bi dafa deñ donc mais sant yàlla rek parce que amoon nañ yéene bi waaw macha allah mbokk téléspectateur Ladoum TV waaye ba tey gisaat nañ fi beneen jeune mâle moom it jeune mâle boo xamante ni si li muy dégagé moom it ci LCS. waaw euh, soo gisaatee jeune mâle bi mooy Polaris euh, dañ ko jël si banque de sang consolider ko parce que dañoo jël papam ak doomam def consanguinité boo xamante ne pour dëggal li nga xamante ne moom la papam am la dañ ko doon def ci. consolidation boo xamante ne pour gën a li nga xam ne mooy jeune géej si maal moo tax ñu boole ñoom ñaar donc mu mu nekk jeune maal bu ñu am yaakaar mu nekk toll si trois mois et demi donc mu ngi noonu moom lañ leen présenté fii aussi. ah mbokk téléspectateur Ladoum TV kon gis ngeen ki nga xam ni mooy géej Mbambulaan tubaar fakal la boo xoolee li muy transmettre ay doomam. ay doom yu extraordinaire li nekk ci moom moom lay copier ci doomam macha allah waaye gisaat nañ fi beneen femelle encore. waaw soo xoolee si jabaru géej moom kii lañ leen indil at fameem kii soo xoolee moo meññi presque li fi li fi nekk yëpp moom ak maal bi parce que moom euh, doomu <clears throat> benn doomu Picasso moo ko jur ak benn sëtu magistrat waaw moom lañu croisé at géej mu génne espoir boobu noonu ñuy wax donc moom lañ indi rek ak njabootam waaw donc moom mu nekk femelle adulte boo xamante ne aussi si kër gi la juddoo daal. macha allah mbokku téléspectateur Ladoum TV boo xoolee tey sélection bi nekk na sélection bu mucc ayib boo xoolee géej mambulaan ak ki nga xam ne mooy jabaram ñoo meññ lii boo xoolee même coupe xeetu xar yi ñu indi oh waaye kii mooy kan waaw kii mooy rakam nekk belle blanche di rakku espoir bi Fanta di femelle bi ñu teewoon léegi kii doomam la tamit. récemment kii la kii la kii la feral moom mu si set mois jëm wii mois donc moom aussi euh, mu ngi si si si sélection bi nga xamante ne moom lañ indi di ko waajal moom aussi pour yeneen yeneen yeneen concours yeneen performance mu teg fi tànk euh, euh, mu teg tànkam fi magan teg tànkam wala lu ko raw waaw mu nekk femelle bu ñu am yaakaar aussi. ah bi nekk na sélection bu mucc ayib nekk na sélection bu doy waar xoolal ma tëng waaw bon soo gisee tëng <clears throat> tëng bii moom mooy snow snow snow king donc moom maal doom la si géej mambulaan mais yaay ji doomu xilaas la xilaas nekk doomu grand raan donc moom satu grand raan la euh, yaay mu ngi mu ngi fa ñoom moom la ñu indi si njaboot gi nga xamante ne moom la géej indi pour wane rek euh, raseur bi géej doon di wane euh, constat bi nga xamante ne géej am na ko si si ay doom donc moom aussi mu ngi toll si sin mois et demi donc nekk si kër gi tamit aussi. ah loolu taw féex la mbokk téléspectateur Ladoum TV boo xoolee sélection bi nekk na sélection bu mucc ayib ay xar yu rafet ñoo fi nekk ay xar yu pare ñoo fi nekk tubaar fakkal la nga fàttali ñu bergerie tanoor fan la nekk ak ki nga xamante ni si bëgg na fa ñëw ak sa numéro téléphone. waaw euh, bergerie Tanor mu ngi nekk Sangalkam euh, soo paasee gendarmerie bi rek waaw ku ñu bëgg a jokkoo ak ñun nag numéro baa ngi nii. 455 80 85 11 ku ñu woo si 455 91 5 11 soo ñëwee ba si gendarmerie Sangalkam bi rek dinañ la guider ñu ngi si tali bi doo wàcc fen doo sonn soo ñu woowee rek accès bi yomb na ko quoi incha allah.